kay. <laughs> musuma xam ne baay bu bëri tiital laa musuma xam lii lii musuma ko xam xam naa ko tey. xoolal tëdd bi nag. daaw ko tëdd bi. yàlla mos na koo mu nekk lan sallallahu alayhi wa sallam. mu ñëwaat ci boobu parce que mënuñu bàyyi nag ay histoire di am. ñu nettali rek dem mu jàll. day yomb. ay satu ba fii may wax yow nii gisul doom gisul néew. mu ngi dund saa doomam bu jigéen di taxawam ba fii may wax yow ni tey ci suba rek lan mujj échanger ci whatsapp. war na nekk mag de kon lu rëy. barki démb Njaay ñu ne ab xale bu jigéen dafa dugg ci hôpital bi mat mi ngi njëkkee beneen hôpital. Mm-hmm. ba mu ñëwee ñu ne jëkkër ji dañ koy césarienne ndax xale bi matul. te moom mi ngi mat. Hmm. ba muy jëndi kit ñëw fekk xale bi accouché normalement. ñu ne ko xale bi nag matul dañ koy yóbbu ci couveuse yi. ñu yóbbu foofu ci hmm. couveuse. deux jours après ñu ne yaay ji mën nga génn. di ñëw di ko nàmpal. mardi bi nga xam ne yaay ji ñëw na ngir nàmpal si doom ji ñu teg ko fa ne ko mënoo gis xale bi. onze heures douze heures. quatorze heures jëkkër ji ñëw seize heures dem leen xale baa nga CTO. ah CTO xale bi mënu leen ko gis dafa faatu nañ gis suñu néew mënu leen ko gis dem nañ police ànd ak policiers yi. ñu jël kayit gi nga xam ne ca lañ expliquer la xew. jébbal ko policier bi policier bi nag ne wax dëgg moo fi ne sa doom dafa faatu. te ci non ba tey yeggun ca mais moom xamul ci yenn anam la sax de. ci lañ mujj woo waa ji ne ko dëgg neexul mooy xale bi dañu ko jaxase ambale ko ak benn drap. dugal ci machine bi. ñu dee bu metti machine bi daw na trente degré trente minutes à quatre vingt dix degré. Eh. quatre vingt dix degré nga maanaam xale bi daanaka dafa. dafa ñor ñorul dafa dafa. dagatu waaw loolu laa bañoon wax nag. loolu bañoon wax. dagatu waaw. non ñorul dafa. waaw kay loolu laa bañ wax. mooy dogat dogati. da koy dagg waaw day dagg cër loolu laa bañ wax. ci fa bu ñi may wax ni ñu gis néew bi ndax daggatoo gu xale bi. doy na di. problème bi mooy. ka njëkk nekk garde nee na huit xale la bàyyi. deuxième bi nee na huit xale la bàyyi keneen ka nee na sept xale la fa fekk. problème bi mooy comme xam nan ni machine ba daw na 30 minutes mais ku dem ca machine ba. looloo looloo laaj ku dem te machine ba nag xam nañ ko. ah mujj nañ ko xam. ah non non. dafa ne ba nii waxuñu leen kan la mais dañu wax ku dem ba xam ne machine bi daw na 30 minutes avant ñu découvrir bébé bi xam nañ ku dugal draay ci machine bi ak ku ko taal. waaw waaw ku ko taal daal. machine bi tàkkulul boppam de. nii taawam la de nii. Hmm. police nag leeral nañ ko ni ko carrément néew bi mu mënoo ko gis ndax ni mel def nañ ko ci ay sachet yóbbu nañ ko ah naqar ji moo ñëw mi dégguñu olof seen dëkkandoo lañu àndal mu wax hmm. ay ca chimère bismillah ay ca bismillah jot a am ci hôpital Abass ndaw ndaxte kii toog nii mooy papay xale bi ci bésu dimanche dimanche euh, bi passé vingt cinq juillet deux mille vingt trois bi passé jabar ji dafa doon matu léegi ba ñu jógee mu yóbbu ko hôpital bu ñu demee Philippe Senghor ñu xool ni ne comme euh, matul woon neuf mois dafa matu balaa waxtu waxtuwam di jot ñu daal di leen yebal Abass Ndao ndaxte ñoom yoruñu woon matériel yi war léegi bañ ko yóbbu ba mu yóbbuwee jabar ji Abass Ndao ba mu yeggee ñu ne ko ah comme ëmb bi dafa xaw a am ay complications te matul dañ koy césarienne léegi ñu ne ko demal nga jënd matériel yu war pour césarienne bi moom la tant que muy dem jëndi ba ñëw fekk yàlla def jabar ji accouché à à voie normale voie basse léegi ñu jël xale bi xool ko defar ko yépp yàlla def tamit xale bi juddu normal ndegam ni mat euh, prématuré la mais bu ñu ko xoolee mu normal amul malformation amul dara parce que ba mu juddoo ne comme motul dañ koy yóbbu ci crèche ba ñu def ko. couveuse programmé woon quoi pour yóbbu ko crèche pour césarienne ko jël xale bi dugal ko. dugal ko voilà def ko couveuse comme motul. léegi nag ba ñu koy dugalee couveuse ñu daal di koy ñu ne pàpp ji dinañ def analyse yeeg xool ba xam ndax amoo risque d' infection wala malformation et tout ba ñu xoolee loolu yëpp ñu gis ni ne dara amu ci résultat yëpp négatif xale bi mu ngi ci jàmm te sax mën na lekk mën na maanaam mën na nàmp mën na naan meew léegi ñu dugal ko ci couveuse bi yóbbu ko ci salle bu ñuy wax euh, kangourou fa lañ ko def ci euh, lundi bi ñu jox ko meew rek yëpp mu nàmp ñu xoolaat ko xale bi nekk ci jàmm ñu peser ko defar ko yépp comme ni ñuy defaree liir yi xale bi nekk ci jàmm nekk ci couveuse gi léegi nag ci lañ libéré yaay ji ñu ne ko comme xale baa ngi fi mu ngi ci jàmm léegi dina nekk su surveillance yaay ji mën na ñibbi léegi moom après dinay ñëw muy xool xale bi tamit pour nàmpal ko ndaxte amul woon sax soow yaay ji mais ci mardi bi bu muy ñëwaat la am soow pour ñëw nàmpal xale bi léegi ba mu ñëwee ci mardi bi mu ñu toog xaarloo ko fa mu ngi ñëw foofu ay matin bi ay 11 heures yooyu ñu toog xaar ko ba mu ñëwee ñu ne ko mënagoo gis xale bi mu ngi ci jàmm wante mënagoo ko gis mu toog xaar ba ay midi ba tey gisul xale bi ci la jëkkër ji nag ne ko ah man de maa ngi fi ba tey mënuma gis xale bi jëkkër ji tamit daal di ñëw bu ñu ñëwee ñu toog tamit ñu xaarloo leen ba ay 14 heures. bi 14 ay 14h et jotee ci la ñu woo jëkkër ji seen responsable woo ko ne ko ah dafa am lu xew te li xew mooy xale bi mujj na gaañu. ñu ne ko ah nan mu laaj la nan la xale bi gaañuwee te démb bi ñu fiy jógee ak fan bi ñu fiy jógee lépp mu ngi woon ci jàmm xale baa ngi woon ci jàmm amul woon benn problème kon naka la xale bi gaañuwee ñu ne ko ah loolu moo jot a am ci la leen ne comme loolu am na d'accord léegi wan leen ma koor bi ndax dama bëgg a gis sama doom ci lañ ko ne mënuloo gis koor bi ndax koor bi neewu fi police scientifique jël na ko yóbbu ko euh, hôpital CTO morgue CTO. te bi ñu te loolu yëpp maanaam waxaguñ ko lan moo rey xale bi ba. ba tey waxaguñ ko lan moo rey xale bi ba police scientifique war koo mën a jël yóbbu. Mhm. léegi nag ci lañ ko ne police scientifique yóbbu na xale bi CTO buñ ko bëggee gis ñu dem moom it mu jóg dem ànd ak jabaram ak euh, mbokkam bi toog mun naa ne nijaayam ñu dem police CTO pour xool xale bi ba ñu yéggee ba foofu. ñu expliquer ñu ne ñoom tamit il faut ñu xam ban xale lañ fa indi ban liir lañu fa indi maanaam ñu bindal leen kayit wan leen ne koor bi yegg si na fa bu ñu defee loolu yëpp ñu wan leen ne effectivement yóbbu nañu kooru xale bi foofu wante moom it mënuñu ko faa gis mënuñu ko won koor bi ndax dañ ko sele maanaam mënuñu ubbi koor bi moom it mu laajte mu ne lan moo tax tamit mënuma gis sama koor doom déjà que xale bi ba mu deewee ndaxte nee nañ ci fajar 6 heures la ñu gis euh, ni xale bi dee na. médecin loolu lañ ko dégg. waaw loolu lañ ko wax léegi mu ne moom lan moo tax ba 6 heures ba au moins sax xanaa ba 8 heures war nañ ko mun a woo moom papay xale bi ne ko sa doom dee na. moom tam mu ñëw xool ñu def li war mais waxuñu ko dara ba mu ñëw ak jabar ji hôpital toog ba ay 14 heures ñu koy soog a wax ni xale bi dee na ba pare ni yóbbu nañu corps bi CTO te mënu koo gis te monte numéro mu ngi ci dossier xale bi mu ngi ci dossier bu ñu bàyyi Abass Ndao ba ñu demee foofu Abass ndaw tamit ne leen mënuñu leen a woon kooru xale bi fii léegi amuñu autorisation police ba voilà léegi ñoom tam ñu jógaat demaat ba police ba léegi hôpital bi euh, maanaam hôpital bi nga xamante ne fa la xale bi faatoo bindaluñ ko kayit pour mu dem police wala mu dem ci. Euh, déedéet ñoom dañ leen ne rek corps baa ngi CTO pour ñu dem fa ba ñu demee CTO ci la leen waa CTO tamit ne leen mënuñoo gis corps bi nañu dem dañu wa soxla autorisation police léegi bu ñu demee police ci ñu wax ak waa police police u Médina. léegi ñu wax ak client naa bi ñu wax affaire bi ñu monter information bi daal ñoom police ñu ne ñoom amuñu droit tere waajur gis doomam ñoom dañuy accompagner voilà léegi tamit ci la ñu dellu si waat instant bu muy dellu si ci la ñu woo nijaayam bi mhm. la ko médecin bu Abass Ndao mhm. woo pour expliquer ko ci instant boobu moom it pour expliquer ko lii jot a xew ndaxte gis nañ ne ñu ngi nekk di jaabante ci lañ ba léegi waxaguñ ko lan moo rey xale bi. ba tey waxaguñu ko lan moo rey xale bi instant bi papa ji nekk police di lijjanti fekk nee nañu def nañu autopsie ba pare. Hmm. léegi nañu woo papay xale bi pour expliquer ko autopsie bi bañ ko expliquer policier bi ne ko ah def nañu autopsie bi wante lu ñu gis ni ne mooy xale bi génn na àdduna dee na ci yenn anam. maanaam dañu ñëw autopsie dafa wane ni ne cër yi dañoo tàkkalikoo dañuy tàkkalikoo mais buggul woon sori mu ne ko cër yi dañuy tàkkalikoo ci naka mu ne ko ah man tamit nii laa ko gisee mu koy liiral ci la papa ji jël kayit bi tamit daa di liir gis ni ne autopsie bi dafa révélé que xale bi buñ kay gis ci néewam yaram bi yëpp nekkutoon maanaam cër yi yëpp a tàkkalikoo loxo yéeg bokk beeg biir bi ubbeeku loolu yëpp tàkkalikoo ci waxtu boobu ci la ñu woon ni yaayam ci hôpital ba chef bi mu woo ko ne ko ah boo leen gisee jaabante bi yëpp daa fekk ni ne am na lu xew mu ne ko waaw ci la ko expliquer nag ne ko ah xale bi de dañ ko fekk ci biir machine à laver bi yaay xëyee di defar la ñu ubbi machine bi gis ni ne amoon na ki fa ne muy xale bi muy liir bi te machine bi daw na fa 30 minutes à 90 degrés balaa dara balaa sax ñu koy gis daw na 30 minutes à 90 degré bu ñu ñëwee ubbi machine bi la ñuy gis ni ne xale bi tasaaroo na ci biir machine bi ci la nag waa ji ki ko gis dem woo police pour mu ñëw def constat bi ci la ñu génnee xale bi néew bi defa ko ci sachet def ko ci carton daal di koy yóbbu ci morgue ba d'accord yéen loolu ngeen si am. loolu lañ ci am. ba léegi mais waxuñu leen euh, maanaam ki nga xamante ne moom mooy responsable bi kan moo jëlee xale bi ci fi mu nekkoon ci biir dugal ko ci machine bi. ah loolu c'est c'est à leur niveau parce que d'après ci papa ji lu ma wax nee na ba ñuy def enquête bi bu ñuy laajte xool nañu laajte nañu ki nga xam ni moo nekkoon de garde comme boom ñoom bu ñuy wàcc bu ñuy kii ku nekk da ngay bàyyee sa morom nombre de bébé yi fa nekk ak liggéey bi ñu fa def ñoom niñ ko tàmm di defee. Mm-hmm. léegi nee nañu ki fay wàcc nee na moom bàyyi na fa huit bébé ki fa yéegoon kii ñëw def garde bi bi affaire bi di am tamit moom it loolu la fa fekk. nee fekk na fa huit bébé. wante kii ñëw nee nañu kii wàcc ak kii di ñëw ci matin bi moom nee nañu nee na moom bu mu ñëwee set bébé la fa fekk affaire yi daa jaxasoo na seen biir kenn xamul fu mu toll nii kan moo wax dëgg kan moo wax dëgg. léegi kon am na trois personnes yoo xamante ne ñoom ñoo ko seex maanaam ki nga xamante ne moo liggéey guddi gi wàcc ak ki ko relevé le ak keneen. ki nga xamante ne moom mooy yóbbu moo yóbbu linge bi. ok léegi si ñoom ñett ñooñu entre temps ci la ci la responsable bi nga xamante ne ni moom moo yóbbu affaire yi ci machine bi ci la nekk mais ba léegi waxuñu leen kan la. ba tey xamuñu kan la de. d' accord léegi nag comme situation bi foofu noonu la demee ñoom ñii lan lañ lan ngeen fas yéene def yéen da ngeen di porter plainte wala lan ngeen bëgg a def mu nekk nii. ah foog naa ci ci démarche yooyu lañ nekk. parce que moom mii dafa jóge woon euh, fele ci police ba parce que dañu ne woon dañuy def test ADN pour xool ndax dëggantaan seen doom la. xale bi amul bracelet buñ ko takkal wala yéen gisoo leen loolu noonu parce liir yi ñuy. juddu waa day am mm-hmm. bracelet bu mu takk wala lan. non ñoom bu ñu juddoo kay xale bi xam nga ni bu juddoo papaam da koy gis yaayam da koy gis tellement am na bracelet. voilà après bi ngeen retrouver koor bi. ñoom ba tey gisuñu koor bi. ba léegi ba fi ngay wax ak man. ñoom gisuñu koor bi déedéet dañ leen mënuñu ko gis. ok kon seen mi ngi noonu mais ñoom ñoom papa ji mu ngi noonu ne waa hôpital nee na ñu seen doom la xale bi fa la juddoo kayit yëpp wane ne fa la juddoo dugg na ci crèche bi def na lépp am na lépp luy wane ne xale bi la te ñoom au début dañ leen ne seen doom la léegi nag dëgg métti na ci xol lool moo tax ñu ne ah, dañuy def tamit test ADN ñu xool ndax dëggantaan seen doom la fu mu toll nii papa ji fa la jógee woon pour dem def test ADN bi euh, ñu ne ko day dem def demande d'autorisation ci police léegi ba mu demee police ñooñu ne ko il faut mu dem ba tribunal foofu la waree def demande bi instant bi fa la toll nii pour affaire test ADN bi fu mu toll nii demande bi la def nii ba pare. yéen fu mu nekk nii lan ngeen bëgg fu mu nekk nii ba tax ngeen ngeen ñëw. ah dañoo bëgg lépp leer. que justice soit faite parce que lii tamit mënul mënuñu ko bàyyi noonu na lépp leer ñu xam lan moo xew ak naka la xale bi génnee ci biir euh, fiñ ko defoon ca couveuse ba ba ñu fekk ko ci machine à laver bi parce que loolu lu doy waar la waaw mën nañu gis ne tamit mën nañ ne négligence la daal ndaxte xanaa sax boo yëkkati xale war nga mën a boo yëkkati ay darab war nga mën a xam ne ne fii nit a ngi fi mën na yëngu mën na mën boo laalee xëy na xale bi mën na yëngu wala leneen en tout cas war na am loo xamante ne indice boo xam ne dina la wan ni ne nit a ngi fii mais nga yëkkati ay darab ñëw ba yóbbu ba ci machine bi xanaa machine bi tamit boo yëkkati dinga nga yëkkati par benn darab pour trier dugal loolu yëpp tamit war nañ ko xool. fu mu toll nii li ñu jaaxal mooy dañu bëgg justice soit faite. ñu mën a xam ñu wax leen kii mooy responsable. kii mooy responsable bi ak nan la mbir yi amee ba ñu yegg foofu ndax xale bi dara dalu ko woon waajur yi ba fay génn médecin yi dalal nañ seen xel ne leen xale bi amul sax mal malformation donte prématuré la te bu muy juddu sax def na un kilo et quelque. waaw mu ngi woon en bon état en bonne santé bi ka fa ay waajuram bàyyi woon tamit mu ngi woon en bon état. ñin ñi daal ñu ñu jàpp ci ñu jàpp ci ñu mën a xam lan moo xew ñun loolu lañu bëgg que justice soit faite te ñin ñi bàyyi xel ci seeni liggéey ndaxte lii métti na ci xol métti na ci ay xol waajur te yaakaar naa ne waajur bu ko déglu ak ni mu amee sa xol tamit dina ci métti ñi nga xamante ne am nañu tey pouvoir bi ngir jàpp ci lépp leer ñu ngi leen di ñaan ñu jóg jàpp ci. benn question rek ñoom ban nationalité lañ. ñoom ay béninois lañ. ay béninois lañ waaw. bi. da ngeen maa fay di. tey ci artu la ci Facebook bi. ñëpp leen bawoon. <laughs> bi. ku parce que gars yi nag. dañuy dugg ci Facebook ña ngi ca natt ya xam nga njëlum njànk fii ci Facebook. waaw kii woon nañ na fi xale boo xam ne mi ngi troisième année ca médecine. Mhm. fac médecine. tàqali kook sagoom ba fi may wax ak yow nii. donc Facebook nag robinet mbedd la. Mhm. ndox daja la. mën naa fa fekk foofu comme mën naa fa fekk keneen koo xam ne da yor jëmm foofu te du foofu. Mhm. ñii nag ñaar ñu bokk ndey ak baay la ay frère ak sœur. Mhm. ku jigéen ki moom day jàngale. dañoo ne ci Facebook bi nag di wax ne dañuy jaay ay oto. Ah. yow soo dugalee ñu ne la dina ñëw dans quelques jour dans quelque mois. plus de trente personnes dem nañ fa nga xam ne neen fa seen entreprise nekk. jóge seeni i joxe seen i xaalis ba tey France daal di eh, leen. tëj na leen kaso neuf mois amul àtte xëy bàyyi leen. Ah. nee nañu examen yii mujj am xale bu jigéen bi dem na corriger. ah jàngale. day jàngale. waaja ma nga ci activité am te ñoom ñu ngi wéy ci Facebook aussi di poster ay oto. di continuer di arnaquer nit ñi te yoon deful ci ñoom dara. Eh, eh, ah te yoon def dara. fañ dëkk nag bëgguma ko wax. Ah, doy na ndax su ma ko waxee sama papa lay mer. <laughs> ah <laughs> Badou. fan fan lañ def géej waay. ah su ma ko waxee da ngay moo tax bëgguma ko. géej waay de man ngay tudd feneen may mer fu dul géej waay. Ah. info bi xoolaat ko de. waaw jar na la. Baadu yemu si Njaay dara. maa ngi leen rax déedéet. dëkk ñoo ko jubadi te kenn raxuñu. ñun nous notre population non non non. non kenn raxuñu. ñu ne raxum gën ngeen. profil kon. du dëgg. ñu def ca Géejawaay nekk du Géejawaay ñun frontière woo moo grave ñun frontière wu nañu ak Cambérène de frontière wu nañu ak yëmbal. yow xoolal bu jëlee Cambérène déedéet Cambérène sa soo sa soo wuñ de. waaw ah, déedéet ah, bàyyi ñun ñun nas lañ sa ñun nas lañu sa ba ban nas. Nations Unies. moom lañ sa sool. déedéet sori na géejawaay géejawaay ci kanam la tàmbalee. géejawaay la lool bàyyi leen yooyu. Nations Unies géejawaay la na géejawaay géejawaay ma nga. ba unité six nga tàmbalee après dara jàmm jëm kaw. bàyyi leen nu jàmm. su ma tegal nu élément frontière ñu seen parce que dañoo am ay versement ay benn annonce bu ñu gisoon benn ay oto yoo xam ne dañ koy def par tranche dangay joxe 30 pour cent du montant bi c'est 70 pour cent yi nga def ko par mois par la suite ñu dem seen liggéey consulter dem seen bureau yeeg yëpp ba xam affaire condition yi comment ça passe ñu joxe suñu avance bañ joxe suñu avance ñu commencé démarche yi jox ñu date de livraison oto yi livré ñu oto yi par la suite la ñu toog dégg ne ñoom am nañu problème ñu dem dikk porte plainte ba ñu porte plainte dikk def suñu plainte ba pare ñu téye leen ba ñu leen teewee quelque temps après un an après ñu doog ñoo woo tribunal ba woowee tribunal si lañ laaj ñu qu'est-ce qui s'est passé ñu expliquer leen procédure yi comme ni ma la wax nii dañoo gisoon annonce bi sur Facebook après ñu dem seen bureau yi ñu déposer suñu xaalis pour ñu jox ñu oto léegi joxuñu oto joxuñu xaalis te génne nañ prison ça fait ñun c'est-à-dire da ngeen bëri bëri nañu on est plus de trente quatre membres trente quatre personnes trente quatre personnes ok euh, moom yéen ñaata ngeen ko joxoon ci xaalis ak ñaata oto la leen waroon jox en fait ñu ñëpp boo gisee sax dox daje la parce que ñu ñëpp annonce bi Facebook lañ ko gisee léegi gi ñu ko gisee Facebook bëri nañu ñii joxe nañ deux millions ñii trois millions ñii quatre millions mu oto yow yaay oto boo bëgg ñu jox la oto bi temps lay jar waaw trente pour cent bi lii la soixante dix pour cent yi lii la noonu lay demee waaw léegi ñu ñu suñu xaalis ñu jox ñu ay contrat tout ça lu leer nañ ñu jox ñu ay contrat ni lii ngeen di fay par mois xaar leen seen date de livraison mu nekk waroon nekk le 31 décembre 2021 lañ ñu waroon jox suñu xaalis mais depuis loolu jox ñu suñu xaalis te ñoom ñu ngi continuer def seen activité. Euh, bi ngeen versé seen xaalis ba pare ñu war a ñu jox leen délai pour jox leen seen oto yi maanaam délai bi dafa passé léegi ngeen réclamer waat seen xaalis yéen. ñu wax tey suba tey suba par la suite lañ dem porter plainte au niveau du DIC. bi ngeen porter plainte dañoo téye waaj. dañ leen téye ñoom ay frères et lañ. ñaari frère la euh, frère la ak sœur ñu téye leen ñu def neuf mois ci kaso bi après ñu génnee leen. avant bi ñu leen téye xanaa bi ñu leen procès ñu ne temps la leen war a fay délai tàngam la leen ko war a jox. amul procès nag dañu ñëw tribunal ñu laaj ñu qu'est-ce qui s'est passé ñu wax leen lii ak lii la ñu def que mu ne ok lan ngeen attendre en retour ñu ne ñu fay ñu suñu xaalis boobu ba tey amuñu benn kii tribunal woowuñu amul procès amul dara te ñoom génn nañ. yow en personne yow mi nga xamante ne yaa ñëw fii ñaata lañ defee man ñu ngi ma yoreel un million cinq cent. ok xaalis global bi ñu leen yoreel yéen ñëpp collectif bi. deux cent mhm. te léegi ñooñu yéen ngi leen gis. ñu ngi fii. ñu ngi def seen activité ñu ngi fii Dakar ku jigéen ki corrigé na bac ku góor ki commencé na defaat activité même activité bi même publicité bi le partenaire wax euh, oto yu muy jaay et tout ça te pourtant ñu ngi continuer seen activité. te mu ngi tëdd seen xaalis mi ngi continuer. mi ngi tëdd suñu xaalis ñu nan lañu def ba xam si am suñu xaalis ñoom xamuñu ko léegi ñoom ñu ngi continuer seen activité léegi ñun ñu toog war a def lan. est-ce que yéen bi ngeen xamee loolu yëpp euh, demande ngeen euh, commissariat. dem nañ tribunal laajte procès bi ñu ne le dossier suit son loolu la ñu wax. suit son cours léegi nag avec ça ñun nan la def qu'est-ce qu'on va faire parce que lii ñun ba ñu dugalaatee problème bi ne fii lañ kii dañ leen carrément dem leen tës di ngeen am solution wala dara wala ngeen def point de presse ut nañu avocat cotiser waat nañu ut avocat def lu nekk mais ba tey dara. depuis boobu ak léegi ñaata temps la def. bi ngeen xamee ne c'était plus de euh, ba ba ñu génnee c'était au mois de janvier je pense bien lañ génn. janvier ba léegi ñoom ñu ngi continuer seen activité yéen jotu leen seen to d' accord mais lu may laaj maanaam yéen bi ngeen demantee euh, tribunal ñu ne leen dossier bi mi ngi suivre en mi ngi mi en cours demande ngeen dikk fi ngeen xamee ne foofu ngeen porté woon plainte. de parce que man moom maa woo waa dikk ñu ne dikk seen dossier bi dem na tribunal man en personne maa woo bu dikk mu ne ma dossier bi dem na tribunal noonu lañ ma wax. léegi yéen daal da ngeen xamul fan ngeen taxawee daal. en fait xamuñu fan la taxawee ak fan la ñu nekk quoi parce que nit ki mënul yor sa xaalis nekk si dëkk bi di continuer activité yow conséquences yi nga koy subir yaa ngi dégg parce que ñun man oto ba mu ko jëndee pour def Dakar AIBD la yaa ngi dégg pour liggéey si en fait parce que nit koo xamante ni yow yaakaaroo si dara nga dajale sa xaalis ba am xaalis dem déposer ko pour liggéey léegi ñoom ñu ngi toog yow nga toog defoo dara te ñoom ñu ngi continuer seen activité man duma leen ko baal de. Mm, mm, mm. lan ngeen bëgg. nañ ma fay sama xaalis man nañ ma fay sama xaalis nañ fay sama xaalis loolu rek laa bëgg nañ ma fay sama xaalis ma continuer sama activité parce que nit ki xamoo nu mu def ba am xaalisam man man ak sama doom kese ñoo dëkk ñooy dund man si loolu laa yaakaaroon pour di fay sama location di di di di fayal sama doom pour mu jàng parce que yaakaaruma ci kenn sutura yàlla yaatu na c'est bien boo mais loo def ba dajale sa xaalis xamoon nooñu def ba dajale ko yaa ngi dégg ñu jël ko ba pare toog si di si liggéey yow nga toog nii amoon nooy def oubien ouverture des classes yaa ngi nii sama doom sem de la war a def. seen avocat ah, bi ñu jël dañ koy woo ba sonn duñ ko jot te joxe woon nañ ku nekk cent si groupe bi. dañ koy woo ba sonn duñ ko jot. ñaata ngeen fayoon avocat bi. on lui a payé un million. chaque membre dafay joxe cent mille membre bu nekk da ngay joxe cent mille am na am na ñu joxe léegi ñun depuis boobu ñu ngi toog ñu xamuñu à quel pied danser. avocat bi koy jël da ngeen ko expliqué woon conditions yi ni mu demee woon. ba fi mu toll nii moom lan la bi xam nga lu mu ñuy wax que tout c' est tout à ñu génnee leen parce que toog nañ six mois amul procès donc nañ toog xaar dossier mi ngi en mais mi ngi en ba kañ ba kañ parce ñun bu ñu ñu demee di yóbbu ko ci yoon parce que dañoo bëgg yoon fajal ñu mais mënoon nañ fajal suñu bopp mënoon nañ man mun man en personne mënoon naa fajal sama bopp parce que femme bi man ki ma xaalis xam naa ko gis naa ko te maa ngi koy gis keroog rek gis naa ko gisee la euh, li ma amul laay te fajal sama bopp te si sa continue comme ça dina ma fay sama xaalis par A ou B parce que man du ma liggéey ba pare di ko jox sama xaalis man ma toog di subir les conséquences moom mu nekk di vécu di def occupation di di di liggéey yi yaa ngi dégg ñun ñu yàqal ñu pour lan. d'accord daam bi yow moom nga doon verser sa xaalis yow bi nga ko mujjee gis lan ngeen waxante yéen ñaar. daam mujjee gis boobu sama doom mi ngi feebar ba sonn ba ma koy mujjee dégg sama doom dafa feebar ba sonn nekk hôpital Fann ma ne ko astu mu ne ma ma ne ko damaa bëgg nga jox ma sama xaalis parce que sama doom dafa feebar mu ne ma non non naa la jox léegi léegi sa xaalis du ma la jox sa sa xaalis sa oto laa lay jox ma ne ko oto boobu ba ma ko defee ça fait un an. libération nag dafa ñëw barki démb see ci tele bi parce que bi ñu jógee émission fii. message jigéen ñi ñu ngi noonu ñuy defee rek tribunal. mooy ñam ñooy liggéey. ñu ci jàpp ah, mais ba démb aw ma. Mhm. bi ñett lañu. waaw. ndeysaan kii wàcc kii mu. waaw en chaîne la. si sant nag duñ ci ñëw. kii. waaw. dafa jël bébé bi nga xam ne ñaari fan la am. lëmës ko ak dra yi nga xam ne dañoo tilim. jël draay dugal leen ci benn saak xam naa saak poubelle yi ñuy utiliser la. Mhm. foofu nag la xale bi ñàkkee bakkanam parce que amatul ngelaw lu mu noyyi. dafa dañ ko lëmas ak draay ba pare dugal ci saak. enquêteurs yi nag foofu ñoom la ñu wax mooy kooku téléphone la nekkoon ba gisul woon la mu doon. ah wax na junjoon nañ ko fii. Hmm. yéen kaay bi loolu la wax. takk écouteur rek nekk téléphone sa message yi ci téléphone yi lim nuy xañ ak lim nuy yàqal par jour enquêteurs yi nag bu ñu sukkandikoo ci yéen kaay bi dañu ne kooku ci téléphone am la scotché woon moo tax li am. Ah. maanaam bi mu koy def tay ko. erreur bi mooy. agent boo xam ne mooy deuxième femme bi mi ngi nekk ci service bu grande hospitalisation. Hmm. moom dafa ñëw rek jël saak bi. yóbbu fa nga xam ni fa la ñuy fóote moom non parce que moom tamit je pense que moom mën nañ ko koo nangul mm-hmm. parce que dafa fekk sac boo xam ne dafa am ay yëre yu tilim mu gàddu rek waaw dem yóbbu fa ñuy fóote jébbal ñay fóot moom trier nañ teg foofu ki nga xam ni nag mooy féet mooy fóot moo jël drap yu tilim yi ndeke mën nga lëmasa liir bi ci biir mu dindi ci sac poubelle bi rek sànni directement ci biir machine à laver bi. Ah. taal machine bi quatre-vingt-dix degré pour mu daw trente minutes te moom bàyyiwul xel sax ci erreur am ba nga xam ni jàpp na ni machine bi war na taxaw trente minutes après. ci la dem pour génne drap yi. ci la fekk xale bi. Oh. maanaam dafa weesu lakk mais dafa lakk ba pare booleeg mokk maanaam dañu ko dañu ko dañu koo da koo wal li li yéene kaay bi tuddee ko mooy broyé oh, daf ko da koo wal da ko wal xale gi ba pare lakk ko lakk ko eh, metti na waay oh, xam naa pour pour pour pour pour maanaam ràññi ci cër sax dina jafe yéene kaay bi nag loolu la wax mu ne moment bii nii ñu ngi leen di toppee faat bakkan ci loo xam ne tayuñu ko. loolu la leen nar a toppee. Hmm. mais nag ñu ngi xaar dëgg-dëgg ban dogal. lañ ci àttekat bi di jël jëm ci ñoom. yow dañuy dem foofu ci tës bi. Hmm. waa ji ci teer bi ba muy jaar ba ñuy liggéey. dañ ko fa fekkoon moom activité am bu rëy embauché woon ay nit yu bari di liggéey liggéeyam yu am solo. Mm-hmm. ñu xëy suba ne ko da fiy jóge parce que terre bi moo fiy jaar. Mm-hmm. mais déjà rek pour nga déplacé wu rek dinañ la jox loo xam ne ndàmpaay la pour nga mën a déplacé mm-hmm. wu. fii ak six mois dinañ la jox loo xam ne. mooy tax nga démarré waat sa activité. ak pour foo installé. six ans six ans. Hmm? ba tey ji furaas ba léegi. six mois ba six ans. ba tey furaas. loolu moom doy na la mu amoon nee na moom la jël loué ko pour jënd ca terrain ba tey laa la wax ni APIX contact sax defu ko suñ leen woowee ñu ne ko tey suba ëllëg ngoon réew moo xam ne nag. danga nga ni da nga jël xaw ma ñaata milliards def ko ci benn terre. waaw te xaalis boobu noonu ba nga koy wax ña nga xam ne dañ leen di puus ñun tuddee leen ay impacté da ni woon da leen ci nàmp ñooñu ba tey ñii jot nañ ñii jotuñu. Mhm. laaj ba samp mooy ana xaalis. ana xaalis bi fu mu dugg. ba samp mooy. Mhm. ana xaalis bi. li tur bi naan ana blessé. bus ba ana xaalis bi. ana xaalis bi ana xaalis bi kay. parce que xaalis bi budget la. matale nañ ko dugal nañ ko. moo jox ñi bàyyi ñi. bi mi ngi daw. te naan ay recette xaw ma ñaata milliards lay def. 600. te am na yeneen. yoo xam ne jot looy daw nag bay def waaw luy daw nag bay def ay recette xaw ma ñaata milliards ngeen war a mën fay ñi nga xam ne wax dëgg yàlla dañu leen fa déjjatee. loolu mooy dëgg nee na moom exactly fi gaaru Kër Mbay Fall nekk exactly fi gaar bi nekkoon hmm. moom foofu la nekkoon moom foofu lañ ko déjjatee. te ba léegi France. ba tey nii ba tey. ba tey ay activité am fi mu toll nii yàqu na. ndeysaan yàqu kay. Ah. fooy dëgg tane ay année. woon dawal yërmande de nekk boo ko déggtee fa nga xam ne fa la doon hmm. da ko war la ko war a jox. di luyee juróom-benni at sax fan la jëm. boo ko jox fan la jëm. kooku koy mooy torox tàng dugg na ko. vraiment. te ñoom de. après sa ñu ñu ñu ñu ñu ñuy <laughs> tiit ci xale yi lu ñuy dem ci gaale yooyu voilà. sa propre réew bi nga xam ne yow dimbaliwu la hmm. yow nga jël as tuut la nga am investir ko réew mi ñëwaat jël ko ci yow ne la ale. Hmm. xaru sax mën na ko def di kooku mën naa xaru di ah waaw ah, mën na ko ah, parce que tamit dafa metti ñu yow fa nga xam yaa ngi am sa teraanga. dafay sa njaboot yor fa yeneen employé yoo xam ñoo fay liggéey ñëw déggiti la ba noppi. Hmm. jox ñu la la la la la la xam ne loolu warloo ak yow. dafa metti dafa metti. xale yi ku leen juróon yërëm leen ku leen juróon yërëm leen. ku la génne ci kër daa dugal ci kër. acca bismillah. un impact du terre. Euh, li may wax ni ñoom depuis le 16 novembre 2017. lañ jëloon sama sama place. moom place lan la woon. place d' la c' est une place d' affaires bi ñu fay ñëw boobu je me trouvais avec plus de dix personnes yoo xam ne dañ doon liggéey ak man. y avait aussi des prestataires ñoo xam ne dañ doon liggéey ak man. ñoom bi ñëwee man man naa wax ni je faisais partie si première place d' affaires yi nga xam ne nii. moom la njëkk yëkkati foofu noonu. sa place ban zone la nekkoon exactement. actuellement nii boo koy identifier moo nekk ci gaaru Kër Mbay Fall bi exact man fi gaar bi net net booy xool foofu moo nekkoon sama place. mu secteur yi yaa ngi koy wax ne nga teer muy train express régional projet boobu moo taxoon ñu yëkkati. waaw projet ma. te boo gisee li waral. ñu wax ma expliquer ma ma daal di jóg parce que jamono boobu je faisais entièrement confiance à nos autorités. je me disais que ne une autorité du taxaw wax la ba pare mu deñ parce que ñoom bi ñuy ñëw di jël sama place. Euh, période boobu noonu ak léegi ça fait presque six ans. te bi ñuy ñëw ki nga xam ne ni moom moo nekkoon euh, gérante bi moom mois dinañ leen fay yéen ñëpp seen xaalis. yéen am ci yaakaar. léegi man confiance laa amoon ak ni ñuy waxee noonu moo taxoon ma am gëm-gëm ci ñoom moo tax ma ne ma lese boo xoolee perte la ma jural parce que loo xam ne nii de un préparation pour jële fa say bagage man préparé wu ko parce que bagage yi li ma fa jële ci bagage ça faisait plus de huit camions yoo xam ne nii chargé naa ko. boo nee préparé woo ko mais ñoom ci li ñu wax nee nañ képp koo xam ne dañ lay yëkkati normalement dina am ndàmpaay bu ñu lay jox nga mën a paase yóbbu say bagage non loolu moom euh, pour sama cas loolu amul. ñoom bu ñu ñëwee dañ dem après ñoom ñoo ñu gis ñu def commission ne ñu ñëw comme yéen ay place d'affaires formelle ngeen dafa am beneen procédure boo xam ne nii moom lañu leen di jaarale mais ci loolu dina am benn euh, de frais de déplacement boo xam dinañ leen ko jox mais ci gàttal gis nga frais de déplacement yooyu ñu la doon wax noonu ça a presque deux ans di la jox frais de déplacement yi te yow déplacé wu nga tamit bi li gën a métti ñoom bi ñu nee la affaire bi du yàgg ça moins de deux mois yow li nga yoro ci xaalis en réserve nga dem jënd ko espace pour sa préparer davantage ñoom bu ñu la fayee nga mën a yëkkatiwaat sa sa sa sa sa business mu daal di taxawaat mais yow da nga jëloon li nga dajale woon li nga économiser woon ci lépp nga jënd ko espace ñi nga xam ne ni tamit dañ doon liggéey ak yow nga bañ a am ak ñoom àq nga jox leen ñoom ñëpp ku nekk daal di dem yow nga dem ne taxal ma xaar APEX ñuy ñëw pour ma mën ma mën a commencé waat sama liggéey comme ni mu comme il le faut loolu dara man je me disais que nii dem naa ba benn instant sax ma ne lii jaratul may sonn parce que autorité boo xalaat ni war nañ fa dem pour mu man ñu jàppale ci kii bi on a écrit des lettres écrit nañ des lettres au directeur de l'APIX à multi reprises le gouverneur de Dakar à multi reprises le préfet de Dakar ainsi que le préfet de Pikine ñooñu ñëpp bind nañ leen ay lettres mais lettres ce sont des lettres sans suite ba léegi duñ la tontu duñ la envoyé dara yow doo xam ne da nga siy sukkandiku fi mu toll nii yow da nga dem toog bàyyi fi mu toll nii imaginel jamono boobu maa ngi doon liggéey di am kii di di di di gagnement fii comme il faut mais di employé ay nit imaginel tey six ans après da nga waroon avancé parce que projet bi le président de la république en deux mille quinze ñoom bi ñu defee seen benn ba génn benn rapport ñoom président de la république lui-même ak euh, les gars de la BAD ñoom lu ñu waxoon dañ ne képp kuy impacté du terre bu fekkee ni jëlee nañ la si projet bi nekkin bi nekk après le projet moo ne nii moom nga nekkoon au par man je me ni loolu c'est tout à fait le contraire quelqu'un ki nga xam ne nii dafa jëloon ay jeunes di leen liggéeyloo chaque jour dina employé ay jeunes day jël ay prestataires am na ñoo xam ne nii il était permanent si moom léegi loolu yëpp amatul imaginez à jour jours aujourd'hui tey da nga obligé yow loolu mënutoo ko def pour lan léegi nan nga def danga nga dem liggéeyi feneen pour mën a yor sa bopp as néew léegi amatoo sax naan yaa ngi mën a jël keneen pour liggéeyloo pression venant de notre euh, État via le projet terre ma terrassé carrément pour te dire vrai parce que quelqu'un boo xam ne nii da nga doon def euh, chiffre d'affaires euh, hebdomadaire bu baax léegi ñu dem ba yow fi mu toll nii sa chiffre d'affaires dafa baissé léegi lu bëri yow affaire boobu mënatoo si rendre compte ci lu bëree bëri kon je dire que ni vraiment le projet terre moom yóbbu na ma à terre carrément. pourtant nee war ngeen a jaar commission ndax yow jot ngaa te dire ñoom même bu ñu vérifier le code euh, cinquante quatre cinq cent vingt huit mooy sama code PAP maa ngi soog a jaar commission après les six ans ça fait presque ay deux à trois mois bi ma jàllee commission donc euh, six ans mën naa six ans après lay soog a jàll commission donc euh, kon lañ ma doon wax ak li am c' est diamétralement opposé même bi ñu ñëwee ci commission bi liñ la expliqué sax neew noonu lañ lay fay ak ñoom ñu la waxoon au début y une différence mu mel ni au fur et at yi di jëm ñiy gën a wàññi liñ leen di wàññi nañ ko man actuellement je me dis que même euh, comme ñoom woo nañ récemment nañ léegi finalement lii lañ leen jox man li may xaar xaaratuma si ñoom pour ñu jox ma loo xam ne nii damay kii comme li nga xam ne ni woo nañ la ne la yow signé lii li nga signé comme ay miet la waratul tax sax ñu téye la fii naan dañ lay tardé nañ la ko jox yow nga jéem a xool laneen loo nekk parce que bu fekkee ni ñun ndax ñoom d'après ni ñu defee amul réparation amul dara ñoom xool daal ne noonu nii lañ leen di fay on est d' accord on a signé donc euh, li des mooy li nga xam ne nii bariwul liñ ñu waxoon au début ak liñ ñu wax léegi nii y a une différence kon donc nañ ñu fay li nga xam ne nii moom la ñu signé loolu ñu dem ñoom ñu dem. nañ ñu boo ko waxee kon sa à dire que du yow donc bëri na ñoo xam ne ñu ngi ci même situation ni yow. non bari na bari na bari na man je peux dire que ni je suis encore jeune. mais am na ñoo xam ne nii tey. Euh, man mën naa wax ni li ma mën j'avais mais affaire mais en plus aussi j'avais fait d'autres formations yoo xam dina defi leneen mais am na ñoo xam ne nii mënuñu am loolu ñoom si seen business bi ñu nekkoon si lañ sukkandiku si lañ investir ay at donc bi ñu leen ko yàqalee ñoom dañu obligé dañu dañu dañu terrassé woo xamatuñ fu ñu jëm yow da nga leen di seeti di wax ak ñoom mais da ngay xam ñii y a quelque manque fi mu toll nekkatuñ la manière bi nga xam ne nii si la ñuy noote sénégalais lambda yi ñi nga xam ne ni ñoom ñoo waroon bénéficier wu ci projet bi bañ see am naqaru xol ñooñu gisuñu gisuñu seen bopp pour dire vrai gisuñu seen bopp surtout ñi nga xam ne ni ñoo nekkoon liggéeykat yi ce qui détenait les places ñoo ñu gisuñu seen bopp ci projet bi parce que actuellement projet bi def leen terrassé. transparence la ñu war woote te yéen da ngeen doon xaar sax mem ñu yor dossier bi lépp li ñuy def ñu jaareel ko ci. waaw loolu nag lañ doon xaar ci ñoom. parce que man je di que moment bi nga xam ne nii dañ nañu envoyé nañ benn cabinet d'audit cabinet bi ñëwee sax man xaw naa ci am yaakaar ne affaire yi dina am plus de transparence mais euh, am na benn période cabinet bi même le gars bi nga xam ne ni moom moo ñëwoon audit di def audit yi bi ñu bi ma koy woo kanama noonu ñoom déposé guñu rapport parce que APIX fayu leen man je si dii dit que ni donc ah y problème comment se il que euh, un, un tel projet financement bi ñu ciy dégg ñun sénégalais yi ñu ngi naan euh, xaalisu Sénégal Sénégal dina fay ba dee xaalis bi nii xaalis bi naa ay détails yi nga xam ne nii yu ndaw a ndaw la yooyu ñu koy dégg ci biir projet bi man tama naan loolu rafetul sax si deru euh, projet bi parce que nekk na projet boo xam ne ci projet yu gën a rëy si ñu taxawul Sénégal la parce que boo voyager à travers d'autres pays yow di nga gis ni lii bu amee ci yoonu yokkute la bokk mais la manière bi nga xam ne nii si la ñuy noote sénégalais lambda yi ñi nga xam ne ni ñoom ñoo waroon bénéficier wu ci projet bi bañ see am naqaru xol ñu gisuñu seen bopp pour dire vrai gisuñu seen bopp surtout ñi nga xam ne ni ñoo nekkoon liggéeykat yi ce qui détenait les places ñoo ñu gisuñu seen bopp ci projet bi parce que actuellement projet bi def leen terrassé xamatuñ xamatuñ fu ñuy repéré wu parce que man je me rappelle bi may ñëw di installé wu pour def euh, business boobu noonu j'avais la possibilité de travailler dans d'autres pays mais dama xool ma analyser ma ne li may liggéey fee ne pourquoi pas mënumaa dem fi nga xam ne nii foofu mooy sama cosaan muy mbaaw pour pourquoi mënuma toog regrouper les jeunes ñu concerté wu xool nu ñuy def parce que période boobu affaire u délinquance toxicomanie yi xam nga drogue bi fii ñu naan boy yi nii mais yow boo fekkee ni fa nga dëkk da ngay am lu la miti man loolu moo taxoon moo ne taxawal jeunes yëpp gis ni kii jàngi woon na am ay diplôme mais dafa ñëw teg lépp à côté taxawalal business am pour jeunes yi mën a am royukaay nekk royukaay ci moom man loolu moom moo taxoon mais bu fekkoon ni état du Sénégal wala un tel projet day ñëw daan ñuy def nii nii bu boobaa duñu mën a taxawal li ñuy taxawal dañuy dem nekk si li ñu war a nekk def ni comme suñuy morom li ñuy def jàng ba pare yeneen pays yi daan ñuy utiliser ñu toog foofu di liggéey am li ñuy am surtout bokk bokk ko suñuy njaboot mais bu boobaa koñ bi boo ñëwee ñi nga xam ngay may wala affaire yooyu noonu mais amul dara looy apporter pour ce pays bu boobaa ñun loolu moo ñu poussé woon à ce que daal di taxawal projet bi mais vraiment à l'heure on a une très grande déception via le projet TER vis-à-vis aux impactés du TER la. déception bu rëy la on le sent mais ci biir déception boobu la amoo leen sax ay interlocuteurs yu valable yoo xam ne tey mu nees nañ leen wax kañ lañ leen mën a fay ak seen dossier bi exactement fan la toll. non pour dire vrai amuñu ko. parce que imaginez quelqu'un da nga koy woo pour ce dossier. mu ne la waaw on se rappelle demain. mu ne la quelle heure. nga ne ma telle heure il faut m'appeler. heure boobu da koy woo bu téléphone am fayul da lay envoyé un un message bu disant que je suis en réunion kon ça veut dire que ni yow interlocuteur ki nga xam ne ni yow si nga mën a dem pour xam yow fu sa dossier toll ak lan moo indi gàllankoor bii nii ba sa dossier am taxawaay bu yàgg bii nii yow amoo ko fépp foo dem yàlla na ma yàlla baal ci kàddu gi mais on a des autorités yoo xam ne nii duñ ñu wax dëgg te loolu vraiment c'est regrettant vis-à-vis notre pays de la teranga pays boo xam ne nii yow da gis ni nit ñi dañu am